ngi leen di siyaare mbokki Sénégal mbokki 2STV yi maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax xam naa li ngeen nam moo tax tey dama leen xaw a jaay affaire quoi tey il faut ma doser leen tuuti wala leen suñu doole parce que affaire yi da ngay maar il faut que léeg xam nga man nappe tuuti <laughs> siyaare ko màggal di béggee képp koo xamante ne nii yaa ngi jàpp la yi mbokk waxtu wi yéen ñëpp yéen a toog di xaar li ngeen di xaar li ngeen di xaar la ñëpp di xaar mais malheureusement duñ leen ko mën a tegal parce que sentir tuñ ko quoi parce que ñu bàyyi noonu rek ñu bàyyi noonu yéen ñu ne yéen a far ñu bàyyi ba maari projet su ko defee ñu tegale ko non dama leen di tooñ yéen seen mbégte mooy suñu yitte li ngeen bëgg rek la ñuy def te li ngeen bëgg mooy ñu indi leen lépp li nga xamante ne nii leeroon na mbokk yi ci bis boobu nga xamante ne nii ci la làmb wane woon boppam ci bis boobu nga xamante ne nii ci la làmb wane tolluwaayam mbokki bantamba mbokki 2STV ginnaaw bi ñu leen bëggee waat bu baax a baax di leen xamal ni seen émission bantamba delsiwaat na delsiwaat na ci anam boo xamante ne nii wax nañ leen ko lépp li ngeen namm lépp loo xamante ne ni bëgg ngeen ko rek ci wàllu làmb mbokk yi la 2STV dina ci dox ay jéego la 2STV dina ci jéem a fexe ba lépp li ngeen ci namm ngeen am ko ci muy li nga xamante ne nii lu am solo la mbokk yi Balla ak Modou Lo ñoom ñaar daje nañu keroog mi ngi amoon le 13 janvier dimanche ci stade Léopold Sédar Senghor stade bi nga xam ni ñu ko duppee le premier président de la république du Sénégal stade bu mag ba ñoom ñaar seen daje bu njëkk mi ngi amoon ci stade Demba Diop stade boobu mi ngi nekkoon en 2010 ngeen gis liggéey bu am solo bi ci la 2STV def xam naa ni loolu ngeen ci namaate loolu léegi léegi ñu indi leen ko ndax leen seen mbégte mooy suñu yitte waaye laataa loolu mbokk xam ngeen ne arène a dem te arène waxee mooy bijou boobu nga xamante ni moom la ñu le président de te xam ngeen ni dimanche bii di ñëw jéey production dina fa dem incha allah ci diggante Papa Thiam ak Tigo Papa Thiam mooy xale bi jël daaw drapeau Mamadou mbay Tigo mooy xale bi nga xamante ne nii mi ngi nekk foofu ci écurie Falaye Balde mi ngi nekk ci écurie Falaye Balde la nekkoon mais jugee na fa dem na ci écurie bi nga xamante moom ak ay raqam ay xaritam ñoo ko soos muy écurie boo xamante ne nii écurie bu am solo la Tigo xaritu yaayam mooy daje ak Papa muy combat boo xamante ne combat technicien la ñaari xale yi koy bëri yëpp ay ndaanaan lañu kon dimanche yaakaar naa ni waxuma la combat bu mag bi rek mais combat yu ndaw yi nga xamante ne sélectionné nañ leen ci bis boobu macha allah bis lay doon bu am solo waaye ginnaaw loolu xam ngeen ni promoteur yi nga xam ñoo ànd ak la 2STV ba léegi jeexaguñu macha allah xam ngeen ni Fallou Ndiaye moom it le numéro un Fallou Ndiaye mi nga xamante ne nii mooy le promoteur numéro un wax naa leen ko mbokk yi moom dina ñëw ci bisu 27 janvier. ci li nga xamante ni ni mooy combat bu mag boobu war dox ci diggante usine doole ak ki nga xamante mooy kàddu gi ñu tuddee ko ki nga xamante mooy Pape Sow Pape Sow nag mooy le grand promoteur immobilier bu Kër Ndiaylo Pape Sow mooy ki nga xamante moo ànd ak xale yi Kër Ndiaylo bëggante bokk ndey ak bàyyi lépp rek ngir jëmale foofu nga xamante mooy seen diwaan ca kanam Pape Sow dem nañ seeti ko mbokk yi ci Bantamba waxtaan ak moom mu wax ñu ni nga xamante noonu lay waajalee boobu du bésu le 27. bokk yi ñu ànd ak yéen ak bantamba ñu dem seeti Papa Sow ci biir këram nuyu ko ñëwaat ci plateau bi. waaw sant yàlla rek euh, di rafetlu lépp euh, sport la ñu am làmb ak lépp si la bokk waaye yàlla moo ñu bëri la jeunesse donc lépp lu ñu si mën a béy suñu waar dañ siy béy suñu waar en tant que jeune mu nekk nag boo xamante ne bés moo am mbégte la bés bu am contentement la vraiment ñu cërale ma ko kon loolu du ñu def lu sant yàlla bu baax a baax a baax ci bés Fallou Ndiaye moo ñëw tuddee la làmb te Fallou Ndiaye gis nga jéego yi nga xamante ne dox na ko ci làmb sa diggante ak Fallou. waaw Fallou xëy yàgg ñu xamante mais gis naa ne ku dal la ku baax la liggéeykat la te it euh, ñaari góor la daal yàgg ñoo xamante mais li ma mën si wax mooy mooy wax si moom mooy ku baax la daal te euh, gis naa ne liggéeykat la te ñun kooku lañ soxla kon dañ koy sant bu baax di gërëm ak Fallou production si bés bi ak cër bi ñu si jërale en tout cas réer si ñun trop trop trop franchement parler mën naa ne magasinage bi benn lañu. kon maa ngi lancé un appel waxuma la jeunesse su ba commune Bambilor waxuma la jeunesse département dama ne Sénégal maa ngi lancé un appel képp kuy ndaw ak foo a nekk incha ko jël cërale ma ko ko si njukkal te incha allah si kàttanu yàlla les messages ah, naa ne je suis l' ambassadeur de la mm-hmm. mm-hmm. maa ngi si woo képp kuy ndaw. Mm-hmm. jërëjëf gis ngeen loolu mbokk yi mooy li nga xamante ne moom la Papa Sow wax ñu koy jaajëfal bu baax a baax di ko siyaare di kontaanaat ci moom bu baax a baax ah di ko ñaanal yàlla sunu borom defal ko jàmm barke Rasulullah damay doose tey ni lay toogee sama xel di may kontaan ci Mouhamed Sow bébé Sow mon ami mon frère borom Kër Massar borom àll bi borom ñaay bi xale bu am jom bi xale bi nga xamante ne ni ndaanaan la mbokk yi dañuy ànd ak yéen fi ñu toll nii nag wax amatul jëf rek des la 2STV liggéeyal na liggéey bu am solo foofu nga xamante ne mooy ci stade de ci l'histoire retiendra combat bi nga xamante ne moo doxoon ci diggante Modou Lo ak Balla ñaari xale yi seen tolluwaay moo waral stade bi mel noonu wax nañ leen stade bi soixante mille personnes lañ jël waaye keroog ci stade ba ñaari xale yi duy nañ ko ba cinquante mille personnes ñu woon ci stade bi macha allah du jamais vu lu musul am ci làmb ay ndaanaan ngeen yéen ñaar ñëpp ay champion ngeen ñu ànd ak Karajo le grand réalisateur la grand monteur ànd ak Bruno Mbaye Amdi Ablaye Ndiaye Matar Mbaye Pa Modou Mamadou Mbaye mbokk yi ñu ànd ak yéen ak la 2STV

dóor ñu ne bi fii rek lay am ci Bantamba kenn xamu ko kenn yëngu ko man rek ko am. exclusivité ba pare. exclusivité. waaye léegi kaay man maa ko am man maa am exclusivité bi parce que yow yaay tëgg combat waaw lu bees lu bees rek kolonko waaw. Ah. kolon kola boy kolon kola boy deux zéro Balla Gaye deux zéro kolon kola boy ngeen ne oh, oh, Modou xarañ loo dem parcelle dëgg neexul feete ji ko Modou loo lay doon ba muy moom dëgg neexul Bruno oto boobu ci kanam oto Modou xarañ loo laax. non Modou Mbaye 2 0 la 2 0 jarul laaj jarul laaj jarul laaj 2 fi. noo tudd. may tudd maman. ah maman. papa. yaa ngi si jàmm. oui may maman foo dëkk. maa ngi dëkk Yoff. yaa ngi dëkk Yoff Modou Lo Balla Gaye. dina gaaw. non Balla Gaye la. bu Balla teelee touché Modou rek Modou am problème. Balla Modou Lo. Modou Lo. Balla Modou rek. Modou rek eh, Thion eh moom. naa def nice. ah foo ne. ah maa ngi dem si biir ba bi rek. par ma voyage woon ko mais ñëw naa bu yàgg maa ngi si liggéey bi. fan nga demoon. mën naa Europe ñëw naa bu yàgg. maa ngi pare waaw mais maa ngi ci liggéey bi ne saa baax a baax. mais da nga da nga raar quoi ba pare duñ la gis da nga ñuy nëbatu quoi. non nëbbatuuma sax yow xam nga lépp ko affaire yi moom jógee xam nga am lu xew da ngay mujj làqatu liggéeyaat bu baax soo ñëwee liggéey am ñëw pour force quoi moo tax ma demoon làqatu xam nga rek yaa ma gën a xam tey leen ñëwee ah, indaale 1-1 rek ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam mu soobee yàlla waaw Balla Gaye Modou Lô loolu jaratu loolu laajte Balla da koy daan affaire bi 2-0 la Modou kii waaw Modou la ama ama mooy sama ah da ngeen di sama waa mafia ñoo sama mafia Modou Mbaye yoole yoole. <laughs> waaw mais naka mu. nice ni Modou Mbaye. tey noo leen ñëwee. ñu nii rek ñëw rek ànd ak Balla Gaye ñëwee yaram bu tàng jër. lu ñu am jël. 2-0 kon. barke yu nit bi lu ñu am jël. wax les parcelles. danoo wér. ñun ñuy géejewaay 100 pour 100 Balla Gaye 2 yoole yoole. man Balla Gaye la Balla Gaye day dóor 2-0. 2-0 2-0 la Modou Mbaye. mais mais mais mais ñi sama waa kër. ngeen def nii lii la la nii. Ah, man xale ama <laughs> laay la ñun dóor 2-0 Modou Mbaye duñ ko may dara. yéen a ba Balla Gaye ci mafia bi la. xiir bi ci bokkul. maa wax mënu maa wax mënu maa wax dama. affaire bi dafa yomb dafa Balla da koy ñëw dóor ko mu daanu man maa ko wax na de. non je je écoute je mâche pas dóor mu daanu man maa la li. Balla ngay Modou xeex. waaw. da koy koy dóor mu daanu kaw. na def. may. koy supporté. Balla Gaye. koy supporté. Balla noonu lañ ko gisee vous êtes confiant. 2 yu gaaw. Modou Lo Balla Gaye. yóbbu MC. nit ku nekk ak kombaam daf koy jox ak xam neexal kaak bàkkoom bëre kaak ak jom. daan la si xam-xam yàlla na yàlla dolli kàttan yasa ñu bëre ko si jàmm yóbbu AMC. Modou Mbaye ñun balaa ñu fi indi. non ku defati couleur bu la laan la door ko ba mu tëdd. yàgg na may def lu ma neex nii ci bula ku ànd ak bala doo tiit doo raf. nii rek nga def. waa day feexal sama xol man. waaw jàll sa xol feex wuyul li wuyaay. Modou Lo rek. Modou Lo kase. naka waar. lépp jàmm yow yaay kan. doomu jàmbur. bis bi gën a rëy ci làmb ci ngay bëree. loolu loo ci wax. ah waaw am kontaan rek. waaw doon ko ñaan. ba pare yàlla defal ma ko. ma ñëw am ndam rek. mbër bu nekk bëre si bés bi mel ni ngay ñaan yàlla quoi. ñu ñaan yàlla ma ñu si ndam. mais yéen xanaa fi ngeen fanaan. fii nañu fanaan xam nga te dañoo wër ba sonn porte bi gaan xam nga jëmi duñ nangoo bàyyi kenn jàll fii sonn nañ bàyyi sëñ Bamba mais sant yàlla. waaw tey noo ñëwee. nu ma ñëwee waaw xam nga indi lu bees tàkk waaw. kolonko bi laay indi xam nga daan ko gars yi long yóbbu gàddaay maa ko flip flop. lamb mel na ne du fàtteeti yaaw jaal parce que bis yu mag yi am ci làmb yëpp bëre nga ci. bi nga dugg see ci làmb macha allah ba tey ci bis yu mag ngay bëree tey ci bis bu mag ngay bëree. waaw loo ci wax ci bis bi. léegi euh, Modou Mbaye combat bi man bés bu rëy réew si man mais lépp rek damay ñaan yàlla yal na ma yàlla sagal yal na ma yàlla sutural si daraje Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam si barke alqurani karim. bis tey moom ku si bëree da sant yàlla barke Seydina Mohamed. lépp jàmm fa kii kenn zaala fii sa El Hadj Diouf xanaa xam nga man foo foo door keleen ngay jàpp ko trois ndam mooy am ki ngay bëreel ndaanaan la bërekat la ndaanu feebaree ndaanu koy faj. Mhm. tey noo ñëwee. xool ma rek. Hmm? di nga gis décision la. ferme nangu looy retour. dara ak manière. loolu retour la nangu loo. isbaak. alburé ngi ni buur baa ngi. day soon biram cukuli cukuli njiglaan njiglaan sere. sere njaajaay njaajaay dëgg du neex. noo ñëwee. sama maam biram Mandela ngaan Ndiaye. bu ko kenn musaana toon day bàyyi bañ mat fukk. mu boole duma. nga ni barki yonent bi. tey kenn ngay jàpp di kenn. mais yow lii la la di waaye yow sa copain nga xamee nga ko tey noo ñëwee waaw alhamdulilahi rabbil alamin moo ñëwaat rek di combat bi njëkk ci suñu tey baa ngi nii hôtel Saly moo koy bëree ak Yawou Dial Yawou Dial la nekk sunu ndeyjoor hôtel Saly moo nekk sunu càmmoñ attention hôtel Saly sànni na laaw moog Yawou Dial Yawou Dial sànni na Yawou Dial ak ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo attention Yawou Dial hôtel Saly ñoom ñaar ku nekk sa tànku càmmoñ nga jiital. attention yaaw jaal daw na dugg Hôtel Sali ñoom ñaar jàppante nañ Hôtel Sali daan na yaaw jaal maa la wax li Hôtel Sali daan na yaaw jaal Hôtel Sali waaw mu ngoog moo ngemboolu xonk li Diamant Noir moo ngembool Lagos bi Zeus mi ngi jiital tànku ndeyjooram Diamant Noir bu càmmoñ attention Diamant Noir dox na ci kawam Zeus ak Diamant Noir attention Zeus arrière na Diamant Noir dox na ci kawam ñoom ñaar fu ñuy mujj Diamant Noir jël na tànk ba wër na ko ndombo ñoom ñaar ci suuf Zeuz Diamant Noir daan na ko jël ba leer na jël ba leer na maa la wax lii. arbitre bi yow lay woote waaw du yoon kay Modou Mbaye. arbitre bi loo koy wax. waaw arbitre bi nañ daal rek man maa ngi ñëwaat yàlla baax na man maa ngi yàlla rek. incha allah la ñuy ñaan ah. a ah, ngañ dem baag wali ma tanjaay guy gëniis naay yaay booy waali njaay kaay jàngi jotati na lambay cosaan bi fi maam yi bàyyiwoon ñooy dëkkal cosaani maam jëriñooni maalaw bi samba kuli mi ji si ngi ndaat ma faali kuma naama sa maam ba tëx ba bëli dégg fukki balak ñaar ni tuuy kuy géwël Modou yaay géwël sa juróom ñaari maam yëpp ay géwël pur. waaw <laughs> amateur la chaque lamb maa fi mais fan si Modou Lo la. si boole sunu mbër xam nga Modou xale loo mooy loolu yaa ngi koy xam. ni def waa lii la yow. dara lii simple ko rek xam nga rek ànd ak tey sama ministre tey tey monsieur le ministre laa àndaat xam naa la da ngaa da ngaa da ngaa génn. Eh, da ngaa génnoon. Salif Sakho waaye doo ko yegg si de. Ah, tey lan la. 2-0 rek. ñaan ah? yàlla rek gis. ah gis de. oui parce que man moom li ma la entraîné moom. ah na ma quoi pour man 1 noo leen gisee ñoom ñaar. waaw ay mbër lañu. Ah, waaw confiance bi ci kan la ëppee pour yow. ah gis naa bala léegi nii nu dawee macha allah. 2 2-0 bu gaaw lay doon incha allah rabbi. Casamance laa jógee damaa seetaan si làmb ji. mais Balla du moroom Modou Lo. ku daan c'est le meilleur gagne. Modou confiant na de. waaw Balla moo gën a confiant. Balla wala Modou. man maa ngi ci Modou Lo. 1-1 laa la wax. bu ñoo taay nag sapeur yi ñoo xew. parce que Youssou way na leen. li ma la mën a xamal mooy. Balla dafa def ci ñetti combat ci ginnaaw. ñaar yi ñu daan ko benn bi ba tey ñu ne moom lañ jox victoire. mais Modou Lo mii dafa mën a bëri ku yebuy def naag ci moom. mais Balla Gaye war a Modou Lo. non <laughs> noo ko gisee. non Modou Lo da koy daan. Balla Gaye 2-0. du yomb mënut a yomb. lu may wax. rek laa ko gisee. dégguma pire sama xel a daal. waaw un plus un égale deux jeex deux zéro mu leer pour Balla Gaye. man Modou Lo laa non 2-0 rek loolu rek moo mun a am leneen mënul am 2-0 rek. Balla Gaye Modou Lo ñun 100 pour 100 Modou Lo lañu. sa yàlla ñu defal ndam lu seddu guy. 2 laa wax man moo di gayel ka. kii añam moo neex. kontaan naa ci Bantamba du ma ko tardé fenn. waaye gis nga lamb ji. lamb ji doy waar rek. Modou wuy ma man la ni yaay Diaz sama jarbaat nga yàlla na jàmm yàgg. 2-0 rek. defe yàlla. 2 defe dama koy daan ñaari yoon. ñaari yoon laa koy daan tey ñaari yoon laa koy daan. que le meilleur gagne parce ñoom ñaar yëpp doomi Sénégal lañ. jàmbaar tey retraite la jëm retraite la jëm retraite la jëm tey. Oh, oh, a xam non dama leen a xar baax moo a xërëm. que le meilleur Balla xajul kenn ci kaw adduna bi. noo dundee ambiance. neex na trop neex na trop. noo gisee lamb. waa neex na trop. waa neex na trop vraiment. gis nga ay stade fees na del mais namu naa la. Ah. dee jël sa téléphone nit ñi dañ lay soxla di la woo doo jël. yow dama lay woo doo sa téléphone. ana papa. ngi fii toog. Ah. ci ginnaaw waa. affaire bi Balla la. 2-0. dafa dëgg. door ñu bigee jawaay.

lamb ji kàddaap bi lay jeexee kàddaap bi. barki Serigne Touba Mbacke la jël ma am direct kii su dëggalee boppam ma mbete ko. voilà su dëggalee boppam barki yàlla dañ koy méttee. man Modou day daan laa la wax Modou day daan un un un un wala waay ñoom ñaar ñëpp say doom lañu. gis nga leen ñu bëree. loo may wax a métti lay doon gaaw na day de ñu koy bu ñu foogee bu ñu bëri ay 30 minutes 40 minutes maximum huit minutes dix minutes mu jeex. kaawoo gisoo ko ci mu daan. non non non non ñaar mënuñu ko daan. mais xamal na tey deux heures la ñu indi ma ànd sama doomu nday caw sa xiir man su ma la gisee ma tiit barki yurint bi. eh Modou combat bi dañ si tax rib. waaw dama see tax rib waaw sama deretam benn instant. yow ànd nga ak moom France nettali ci laa ma ñu borom la daaxee quoi naka nga gisee état bi. waaw alhamdulilah franchement Palla bu njëkk ba lañ gis di ñaan yàlla yàlla nañ suñu borom la fa ca di ñaan yàlla na ko yàlla may ndam. yaakaar nga mu doon combat gaaw. waaw combat gaaw gaaw kay pourquoi waaw. dóor mu daanu xaj na. dóor mu tas. amateur lañ Bruno ñu ay supporters yu civilisé lañu Bruno boo xoolee làmb ni mu mel Bruno xoolal doomu aadama yi ñëw fii ñi ñëpp dañoo ñëw ngir taaru làmb ñi ñëpp dañoo ñëw ngir lu defar làmb Bruno ñii ñoo bëgg làmb waa kër Modou xarit waaye. noo gisee bis bi ak loo ak kontaan rek ak ndam kontaan rek di tudd ak monsieur le président du Sénégal Macky Sall président du Sénégal pour tous les présidents tous les am nga borom kër. Eh, non amaguma li laa bëgg may sam papa ñaareel. man lay wër. nangu nga. waa nangu naa. Malaysia loo wax tey ci. xanaa gunge suñu ministre rek Matar Ba kontaan ci bés bi bañ ko tuddee suñu président. Ah, présidente des amba ah, de l' émergence. présidente des ambassadeurs de l' émergence Malaysia. maa ngi lay ziar frère. yaa am jàmm. waaw maa ngi si jàmm. da ñëwaat ci làmb. waaw xam nga làmb moom day suñu sport national. rawatina buñ ko tuddee kilifa Sénégal muy le président Macky Sall ñun ñëpp dañuy mobiliser wu ànd si ginnaaw ministre des sports monsieur Matar Ba ñëw teew fii nga xawante ne ñaari doomu Sénégal ñoo fi jàkkaarloo muy euh, Balla Gaye ak Modou Lo wax ne ku ci gagné rek Sénégal la gagné waaye comme parcelle laa dëkk ah, Modou Lo yàlla na gagné. nii nga def rek ci cuub. waaw gis nga rek ñëw rek ci suñu bisu président de la république son excellence Macky ñu tuddee ko bis bi dañu ñëw ànd ak ministre des ma taar Ba ñëw représenté ko vraiment kontaan trop gis la fête est belle bisu président Macky Sall nii rek lay mën a mel. lu waral sa teewaay sa teewaay si la sama teewaay mooy bésu président de la république euh, bésu ñaari mbër yi nga xam ne ñoo gën a am mbooloo ci lamb bi ñu tuddee leen président Macky Sall kon il faut ma ñëw ba pare nag xam nga dama am fu ma far kon il faut ma ñëw teewee pour sotaale côté boobu may ñaa nag ndam li dellu Casamance waaw. dundee ambiance ambiance bi neex na xam nga ñaari mbër yi dañu am public am supporter euh, supporter yu mel nii ku ko am rek xarañ ngay def donc euh, moo daan làmb ji neex ñu yaakaar nag nu mu commencé mu jeexee ko ci sportivité ndax euh, li ma fi gis dal na xel ku nekk a ngi supporté mais amul benn violence donc yàlla jeexee noonu ci jàmm ak maa ngi lay nuyu di remercier waa 2S yëpp bés bi nag nii la mën a mel parce que kiñ ko tuddee it dafa def lu ne ci sportif yi kon donc. Gaston su jëlee bés bu mel ni tuddee ko ko ah yaakaar naa ne def na li yoon donc maa ngi remercier le ministre Matar Ba mi nga xamante ne moo délé moo jiite délégation bépp ànd ak responsable APR yëpp bés bi rafet na maa ngi ñaan yàlla que le meilleur gagne. tey Modou Lo Balla Gaye huit ans waaw huit ans après wala neuf ans ñoom ñaar ñu war a dajawaat tey ci bis bi ñu tuddee ko le président de la république monsieur Macky Sall tey loo wax ci bis bi noo dundee ambiance. jërëjëf. d'abord ci at mu bees mi ñuy ñaanal sunu réew mi yëpp yëpp am jàmm am wér yàlla yokk sutura si ñun sénégalais yi nag ñu war a gën a góor góorgóorlu nangoo tegu ci yoon discipline lu discipline amul dara du am bési tey bi nag dafa exceptionnel kuñ tudde làmb ji président de la république bu ko ko tuddee Aziz Gaston lu tax ndax liggéey bu réy bi muy def ci réew mi ñan ñoo koy bëre ñaari xale yi xam ne tey peut-être ñoo gën a yàgg naaw ci biir làmb ji bëre woon nañ fi tey comme niñ ko waxee di revanche pour kenn ki di confirmation pour keneen ki ñu di leen ñaanal rek ñu def ko ci jàmm ak salaam te xam ne ñoom ñaar ñëpp ci réew mi lañ dëkk te victoire bi du génn Sénégal yàlla nañ ko moota mottali ci jàmm làmb gën a ubbeeku gën a dem kanam. ministre tey lii giri la wala weex la. sama rak bàyyi ma xam nga nag euh, sama rak ju baax nga yaa may wutal affaire yi ma di ko sol euh, boole naa la ak sa papa Bekay. waaw mais maa ngi leen nuyu tey bis bi ñu tuddee président de la république daaw làmb sargal na ko. waaye ren bis bi gën a màgg ci làmb la làmb jël sargalee ko président de la république monsieur Macky Sall loo wax ci. waa bés la boo xam ne bésu Sénégal la lépp dara génnu ci Sénégal muy gis nit di liggéey nga ne ko jaajëf moom la Gaston def ak Aziz te président Macky Sall mérité na ko moo tax tey gis nga combat bi ni mu mel stade bi fees del ba am ñu ne ci biti te suba ba léegi nit ñaa ngi ci stade bi loolu moom moo lay won ne sénégalais yi ràññee nañ kuy liggéey ak kuy wax président Macky Sall tey bés bi ñu ko tuddee tuddee ko làmb tuddee ko ay champion organisation bu mucc ayib bi li ñuy wax rek mooy ñaan yàlla suñu borom mu jeex ci jàmm bu ci benn jafe-jafe am parce que nag jaajëf moom kuy liggéey lañ koy wax Gaston it ku jara gërëm la moo ko moo moo moo moo ko Aziz parce que bés yi dafa baax ci réew bés la boo xamante ne bañ ko jàppee ba léegi Sénégal ñëpp moom la ñuy waxtaanee te réew dafa laaj moment d'épanouissement moo tax làmb bu ñu ko xeeb lii du sport bu ñu jéggaani ku gis lii fi xew sport ak culture bokk nit ñi ne ci jàmm di wéy di génne cosaan nga xam ne li ñu am lu cher la dañ ko war a téye bañ ko yàq.

mbokk yi ñu ngi taxaw ak Père Balla Gaye papa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sama Modou Mbaye. da ngeen a maye revanche huit ans après différence ñaari bés boobu ak bésu tay bi. non maye wuñu revanche revanche moo jot. dafa jot bi Modou Lo dafa bëre ba yegg si. ok Balla Gaye di bëre. loolu moom maye wuñu dafa jot. dafa jot combat bu ñor la. waaw bu boobu ak bii lan mooy différence. différence bi du bëre parce que rek ndax. ñaari mbër lañu ku ne war naa mën daan moroomam guddi yi ñu toll koo ne moo mën wax sa bopp rek jekkoo fi nekk ku jekku nag yàlla ma na laa may ndam. mbokk yi ñu ngi taxaw ak Ibou Diouf kenn ci ndaanaan yi nekk ci Rock Énergie maa ngi lay nuyu. waaw ah, Modou waaye maa ngi lay fay. yéen a yóbbu Modou ah mu dem nekk en Espagne préparé wu ngeen di jël seen revanche ci Balla Gaye 2 huit différence ñaari combat yi ce que am na différence. waaw ñaari combat boo xoolee. am na différence bu métti bu bari sax bare bare bare Sénégal yëpp nañ ne xam nañ am na différence am na différence bon boo xoolee ci diggante bi am na ku ci yéeg am na ku ci wàcc boo xoolee diggante am na ku yéeg am na ku wàcc te aussi bu njëkk ba mu maturité bi moo ko desee woon te léegi macha allah am na maturité am na maturité bu baax. nangu loola ak Boy Niang numéro 2 Bruno. combat spécial bi li moo tere Balla Gaye ak Modou Ndongolo ak ba eh, attention Maguette Seck dugg na ci garde bi Boy Niang numéro 2 attention Boy Niang daje na ak Ndongolo Ndongo daw na takk ko ñoom ñaar ki ngay bëreel daanaan la Ndongo. Ndongolo ak Boy Niang numéro 2 ñoom ñaar attention Boy Niang lay la laa bëgg na ko tël Ndongo bañ na Boy Niang xëcc na ko taf na ko ci kawam Ndongolo Boy Niang Boy Niang Boy daan na Ndongolo ba lu arbitre bi wax ñu déglu leen arbitre bi nee na Boy Niang daan na arbitre bi nee na Boy Niang daan na Ndongo Lo tey ñu ngi dajee ci stade bu mag bi nga xamante moom lañ tuddee le premier président de la république du Sénégal monsieur Léopold Sédar Senghor mbokk yi ñaari xale yi ñu ngi ci biir géew ñu xool cumikaay ñu xool leneen li nga xamante ne mbokk yi ñu ngi ci biir ci bantambale xew wax naa leen dóor biri doo ñoom ñaar nee nañ pare nañ arbitre bi sifflé na combat bi ñoom ñaar ku nekk jiital na sa tànk càmmeñ Bruno Modou Lo ak Balla Gaye 2 ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo Bruno booy xool ci taxawaay Balla Gaye 2 numéro Balla Gaye numéro 2 moo ko sut waaye Modou xarañ Lo mi ngi ne tekk di déglu Balla Balla ngi ne tekk ñoom ñaar waaye ñoom ñaar ñi ngi ne tekk Balla Gaye ak Balla Gaye dugg ci garde bi dóor na Modou Lo na Modou Lo dóor na Balla ñoom ñaar attention dóor mu daanu attention Modou Lo Balla Gaye numéro 2 attention ñoom ñaar jàppante nañu Modou Lo Balla Gaye numéro 2 ñoom ñaar ñi ngi xeex attention ñoom ñaar ba Balla Gaye ngi dóor Balla Gaye ngi dóor ay perkit moom ak Modou Lo attention Balla Gaye numéro 2 moom ñoom ñaar Balla Gaye numéro 2 ak Modou moom ak Balla attention nu ñuy def Balla ngi dóor Modou fayu na ñoom ñaar ñi ngi xeex attention Modou Lo ak Balla Gaye Balla Gaye a dóor attention Modou Lo Balla Gaye ñoom ñaar Balla Gaye a ngi dóor ba tey Modou Lo ak Balla Gaye numéro 2 attention ñoom ñaar attention Modou Lo Balla Gaye Balla Gaye da ko bëgg fax Balla Gaye 2 Modou Lo ñoom ñaar Balla Gaye 2 Modou Balla Gaye 2 Modou Lo attention ñoom ñaar ci suuf Balla Gaye 2 Modou Lo ñoom ñaar Balla Gaye 2 daan na Modou Lo la ilaha Balla Gaye 2 daan laa ilaha illallah Balla Gaye 2 daan na Modou Lo jëli bi leer na xamante ne ni moom moo amoon tey ci stade de l'amitié gis ngeen li nga moom moo am mbokk yi Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo ñoom ñaar ñoo doon bëre seen revanche Balla Gaye numéro 2 mbokk yi gis ngeen jël bi mu daan Modou Lo daan na ko jël bu leer bu amul benn werante xeex na xeex na moom ñoom ñaar ñu jàppante seen combat duré Balla Gaye numéro 2 do gagné ko daan ko jël bu leer bu amul benn werante mbokk yi gis ngeen combat bi li nga xamante noonu la demee gis ngeen li nga xamante moo amoon ci stade de l'amitié xale yi fi bëre bare nañu ku ci nekk wane nga sa bopp ambiance bi fi amoon ñaari xale yi ñoo ko waral ambiance bi fi amoon Balla Gaye moo ko waral Modou Lo moo ko waral Modou Lo tu n'as pas démérité lamb moo mel nii làmb moo mel nii lamb moo mel nii nit da ngay bëre tey daan ëllëg nga bëre ñu daan la nit da bëre tey daan ëllëg nga bëre ñu daan la lii la yàlla bëgg yàlla moo dogal tey nga ñàkk waajal nga sa combat def nga ci fulla def nga ci fayda def nga ci jom def nga lépp li nga war a def yàlla moo ñow yàlla moo ne Balla Gaye numéro 2 da lay daan munoo ci dara tey munoo ci woon na rëcc falee Balla Gaye numéro 2 daan la ndax loolu la yàlla bëgg ñu lay encouragé di encouragé ñi nga àndal lamba mel noonu góorgóorlu leen ngeen defaruwaat dina baax Balla Gaye numéro 2 félicitation ñëw nga barki yàlla Balla li yëpp laa waxoon ndam lii ma ko waxoon barki alxuraan kay mun ma yow borom baax yow waa ji yow dama war bi lii wala kontaan boobu la. Balla comme li ma la wax rek rien def nga li nga war a def ñëw nga ambiance nga comme d'habitude niñ la xamee noonu nga ñëwee yàlla sunu borom jox la ndam ñu lay félicité Modou Lo bul découragé de xoolal ci ginnaaw Balla Gaye 2 bu découragé woon rek du bëreeti waaye découragé wul dafa jàpp. dafa gëm boppam ñëw yegg si ba tey jii fii mu yegg si mu am ndam ci sa kaw góorgóorlul bul bul mu sa découragé làmba ngi nii góor góorgóorlul nga jàpp waaye benn message boo xamante ne dama ko doon lancé jëmale ko ci Waly Ballago ak Papa Diouf yéen ñaar ay doomi réew mi ngeen Thione Seck jaar na fi Youssou Ndour mi ngi fi Thione a ngi fi Ismaïla Lo Yagne ñoom mi ngi fi Cheikh mi ngi fi Ndiaga Mbaye jaar na fi ndaanaan yu mag yëpp jaar nañ fii ci Sénégal ci wàllu way diggante benn ndaanaan musul ñaaw coow mënut a ñàkk rivalité mënul ñàkk concurrence mënul ñàkk waaye na doon concurrence bu seen bu légal ndax yàlla suñu borom bëggul kenn kuy tooñ bëggul kenn kuy def lu ñaaw yee ñaar jéem leen a bokku ndey bokku baay ñi nekk ci ginnaaw di wax di def yeneen loolu baaxul nañ senegal nañ booloo monsieur le président de la république Macky Sall ñu ngi jëm ci le 24 février le 24 février ci la Sénégal di fal président bi nga xamante moom la fi war a teg bu dee yow la nga ñu la ciy encouragé bu dee yow lay dooni ku mu mën a doon it waaye monsieur le président li yow lañ koy wax Sénégal yaa fi nekk na nga góorgóorlu wala nga jàppale ñu ba bu coow am bëgguñu xeex am ñun ay xale lañu dañoo bëgg ku ñu aar ku ñu sàmm monsieur le président bu élection amee jeunesse bi ñu ngi ciy gaañ. ñi ci tëj ñi ciy rey dañoo bari te ñooñu ëllëg mën nañoo jëriñ réew mi ñu lay ñaan na jàmm rek am ci élection yi ndax réew mi bu tàqee yow lay tàqal xam nga lu tax ndax dañ naan bi fi Macky Sall nekkee la tàq loolu bëgguñu moo am ñu ngi lay ñaan police yi gendarme ñu gën a dawal yërmande seen liggéey rafet na Sénégal gépp gis nañ seen liggéey waaye na yërmande gi gën a bari su ko defee àddina Sénégal jëm kanam mbokk yi tey nii la woon ci Bantamba ñu leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak la 2STV Bruno Mbaye mon ami de tous les jours saa bu ñu àndee mu neex Ablaye Ndiaye aw ma sa fay maa ngi lay bëggee Amdi ñëw nga jàpp ci combat bi yow ñu ngi lay jaajëfal Pa mbay Mbaye Matar maa ngi leen di bëggee bu baax a baax mbokk yi Karajo lépp moom la di leen jaajëfal c'est le Bantamba c'est le Bantamba c'est le maire maa ngi lay euh, dellu ziar di kontaan si yow moo Lo déjà li mu bëree est yoon la. waa xam nga làmb yoon la ndax moo Lo du daw benn côté mën nga ne du mën nga ne mënoon na arrière mais su boobaa ñu ne dafa daw parce que bi mu déclenché jël coup rëpp bi ñu ko gëddaatee mënoon na arrière génn mais moom jom cee bëri ci la déclenché ñu téye ko bi ñu jàppante muy jéem a pëlëx pëtëx lu jaar ci faa parce que da koy bëre ci la daanoon bàyyi ba yoon bala da koo da koo bloqué ko poids bi léegi nag bi mu bàyyee droite bi di jaar ci gauche bi jëla ko bloqué. foofa loos wi day lemu ci diggante ngembali ci suuf su boobaa bu ko sajjee day lemu bu ko arraché rek day jóg. Balla Gaye li ci kanamam. li ci ak ni mu bëree tey. non Balla Balla fiis nëbbul fi mu jëm bi mu daanoo waxuma combat bii bi mu daanoo ci bombardier la ne waa géejawaay li ma ñàkk dinaa ko amaat kon kay moom bëtam yëpp mooy doonaat roi des di entraîné ñu ne ko ndax combat bi mu ne non même bi li des ci sama lamb yëpp dama ciy rey sama bopp ndax gis naa ne askan wi mel ci man. Modou Lo Modou Lo it euh, Eumeu Sène même bu dee même même bu dee roi des arènes. Modou Lo amel ah, na ko revanche Modou Lo ko daan ñaareel ba war naa witti Bombardier ci mën naa witti revanche ci Bombardier ñaan ko revanche ndax bi muy xëccoo roi des arènes ci Bombardier Bombardier ko daan mais Bombardier ñàkk na ko ñàkk na roi des arènes am na yeneen xale yu ñëw it Modou Yékini génn na tey seen génn Balla Gaye 2 génn am na xale yi ñëw foog ñu dañ leen di fekk. remplacer sa classe bi foog ñu ñëw dañuy ñëw ah, classe bi man. foog ñu ñëw mënta ñàkk. 2010 yaa indi woon Modou Lo. waaw 2019 yaa indi Balla. ci lu wér. mais da ngaa ñàkkoon tey nga am dam waaw loolu la yàlla dogal. noo gisee ni sa poulain bëree. waaw ni ñu ko bëree loo rek loolu la bëree. parce que euh, bu dee waxtaan wax dëgg ca la moo ko man bu ñu bëree woon 10 mu daan ko 10. ni numéro 2 tey daanaan na mu. sama copain ah, déedéet bu ma mere yaay sama xarit yaay sama mere. Balla Gaye 2 tey daan na Modou Lo na ko. Balla Gaye 2 dafa am problème am tolof tolof mu bàyyi lamba ñetti atu borewul mu ne damay gàddaay gaa ñi yaakaar ne caaxaan la yéen a ko jisal seen bopp dese na. booy bu nagaa ñi takk seen ngemb ñu ngi seen kaw. du bég bég ak sant yàlla ndax lu ñu doon xaar ci moom la. Balla Gaye dafa sonn trop trop di jàmbaar lool ay tolof tolof sax ñu yaakaar ne mënatul. te suñu borom def na ci moom man Aziz Ala Ndiaye jël ko bu INSEP mu def fa ay weer suñu borom di ko suturaal di ko suturaal ba bis bi ñëw suñu borom suturaal na juy suturaal ñu ngi sant nag bu baax monsieur le maire Aliou Sall jàppale na ko ak Aly Ngouille Ndiaye ak képp ku ne Guédiawaye maa ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal jàmm. quel que soit alpha. quel que soit alpha bi ñu ko gëddee def na recul mais recul frein bi waa ji xeexee ci kawam ñaari kuy dalu ko mu def recul waaj daf ko waaj ji bàyyi ko dafa daf ko sëkkatal mu ko sëkkatalee mu répondre ñu xeex. volume mu Balla Gaye sonalul Modou. non non non non non mu bala gay mën na ko sonal parce que fa mu nekk la fa mu egg la waaw dañ ko fàqat andi ko fàqaat ko nag mu surux dañ ko suruxal. ba pare dës ko. Balla Gaye daf ne def ko njatt njatt ko dafa dësu ci kawam. Balla gay de Modou Lo du bête noire. bête noire la bête noire la ci xeex parce que Modou loo daaxul xeex Balla te touché na ko ci ku li mu se rëpp nag dafa glissé moo tax mu rëpp mais li am solo moo di njool mu la tiim sut la ba pare mbaar la boo amul chance loolu doo ci génn. yaakaaroon nga ne dina demee nii. ah nu mu dafa mën a demee nii parce que bëri bi bëri suuf la. bi ñuy commencé laa leen ko ko bëri bi suuf la suuf lañ koy bëree bi ñu ko bëree suuf parce que Modou Lo li mu entraîné bëri suuf la entraîné Balla Gaye loolu la entraîné boo leen xoolee seen bi ñaari open press boo leen gisee suuf la dem di ko jàppante et puis dafay wane ni tey Balla moo ëpp doole Modou Lo moo ko ëpp doole. moo ko ëpp doole moo ko ëpp doole te daf ci feeñ non fi mu ni mu ko daane koo ni daane yaa ko ëpp doole moo ko ëpp doole et puis Modou combat bu yàgg bi la doon xalaat bala may ko ko. Mbaye Gueye loolu la ma wax ci tur bi ne ma combat bi du yàgg bu guddee ba gudd dix minutes. lay non non ko mat bu yàgg laa ni combat fa donc bi sax yàgg na sax lii mu am a kus néew yàgg na mais combat bi waroon na teel a jeex mais li ma ci gis mooy man j'ai vu que Balla Gaye am na doole te bu amee doole Balla Gaye mën naa bëre ba pare parce que sa un lutteur pare na. ñoom ne nañ pare nañ pour pour pour dem jëli seen revanche ah, ci Eumeu Sène. non Eumeu Sène ak mootloo Lo signé nañu seen contrat jox nañ leen avance taxaw na. TNT moo ko tëgg loolu taxaw na depuis ça fait ay 4 mois waaw scoop laa la jox. Gaye 2 Balla waaw ah, bu ñu ko remiser baaxul bu ñu ko bu ñu ko remplacer baaxul léegi nag jàpp naa at la waa père lii lan la. dañ koo mboot waa mboot yi day xew. ah. waaw ah, dafa na mboot. Ah. attention ñaari xale yi jàppante Ibra Gabou Baba Yo Baba Yo la ilaha Reca bu mbot na Baba Yo mbot mu ci làmb waaw parce que mooy li ma la doon wax rek nee naa ngi déparé ci kaw mais bëri Mor bañ na wàccaat na bëgg na koo bëtt Mor bañ na bëtt na ko bëgg na koo wër ma gang rasu na ba na ba ci kaw góor gi Diouf la laa ko jël eh xale bi ndaanaan la ndaanaan la waaw waaw <laughs> jaayul dafa lu la neex njaabal ah, dafa bëre ba daal eh. Mor Lamp jommi na yàq na ko da koy teg a sées xatar bi eh, wala eh. mbot lay doon laa ilaaha illallaah booy bawal bañ na xatar bi lay doon wala mbot xatar bi mbot mbot la maalax lii mbot mi rëy na eh, waaw waaw <laughs> xale bi bëri naa moom de wax xam doon lay waaw doomi jàmm gën Abdou Aziz Gueye di nit ku baax nangu sonn ci xale yi aussi ah <laughs> li ñu wax ci Ada Fass a ngoog mën a bëri daanaan la. ba mu jëlee tànk ba laa ko bañal wallaay wallaay wallaay <laughs> champion la xale bi day dem ci yoon la ci yoon ne de. <laughs>